waaw di sant yàlla ak yonante bi eh, di sant suñuy waajur di sant seen ba Bachir Tall afa ba mu toxal maa moom di sant tamit son excellence monsieur le président Macky Sall parce que lu ma sula am ci réew bu amee ka ko def war ngaa taxaw ne ko waaw góor waaw góor tax doon góor waaye dina yokku ngóor ndax li suñu fierté la Sénégal yëpp la ko defal waaw moo tax nag ñu ne ñu ñëw teew fi ndax ay citoyen lañ di ay sénégalais kon président Macky Sall bu defee lii sunu wareef mooy ñu dagg suñu yitte yëpp ñëw dana ko jërëjëf gis nañ ni nga def ñu ngi kontaan ci yow loolu fa tuuti xam nga mooy dëkk bu naqaree dundee te neex a deewee boo nee zone na ñun la bleu na boo nee bleu ñun la xonq na boo nee xonq na ñun la ñuul nga kenn xamul Sénégal lu mu bëgg waaye lii nii xam nga yi nga xam xamante ne daw sax France ñu andi ñu ko fii mun ñu ko wax merci président jërëjëf la nga def baax na waaye foo ñu jaar ñun sénégalais ñoo naqaree defar waaye lii kenn mën nañoo am lu raw teer bii ñaata milliards te ñu ko ne sant sant ko te ne ko doxalal mu yeggale lii des man de loolu laa gis Ah. waaw waaw parce que Sénégal dafa metti te si ki ma lakkandoo ku njëkk a yuux na ngaa ragal ma ka naan rek sala ngaa ram tora bourgé de wàññil li wàññil paas yi ndax tamit mooy yi amuñu te féppay metti te njaboot war a xëy di uti lu mu am war a pare ñëwaat boo koy la boo koy wax lii day métti ci moom nañ wàññi paas yi maa ngi dégg ñi naan cent ñi naan 1000 francs loolu borom njaboot kuy daw 2000 francs bu naree fay paas 1500 wala 2000 day métti ci moom na ko wàññi bu baax a baax man mosuma génn APR waaye du tee man da Fuuta dafa ma ñor may xeexal sama askan te Fuuta bu soxlaa bu APR soxlaa day ñàkk waaw mais man mosuma génn APR. waaw man xam nga moom APR moom ñooy ñaaw yaay ba lu am rek ñu ne APR man ba may baat rek kenn baat rewut man aw ma droit firi aw ma droit dem soirée Wally Seck ñu naan président ko jox yi malet ak Antoine Philippe Diome waaw Antoine Philippe Diome sama càmmeñ da ragal féetale xëy na wërsëg moo a tax ma teg yëpp arme yëpp ànd ak moom mais man président jox ma dara mosuma toog sax président. président ma suñoo toog ma suñoo tegee bët xëy na tey ma gis ko war waruma mën a am xaalis man may ñàkk di jariñu di jàmbar fakk tëdd waruma mën a amal lu ma jox ñaaxarañ la war a waali seek c'est pas la fin du monde loolu du loolu loolu du débat xëy na sénégalais ñoo bëgg a débat mais loolu du débat fi ku fii ku amoon ku la compal nga jël te ku ma compal it ma jël sama njaq moo taay la compalaguñ ma nag waaye bëgg naa ñu compal ma ñu gën a taxaw takku àndandoo xàccandoo dóorandoo xool luy jëmale sunum réew kanam ñu ànd ci ak ku mu mënti doon ku mën a jëmale suñu réew kanam ñu ànd ci te président nag mu ngi ci bonne voie bi waaw ñu koy fàttali tamit pose première pierre ba mu defoon fële ca wurusoo gi muy muy muy muy lii bi muy muy muy hôpital bi ñu ngi koy ñaan mu defaral ñu ko a bagage yi nga xam ne demoon na ca daane maayo ba pour yoon bi ñu ngi koy ñaan aussi yoon boobu tamit tali bi mu ko doral nañu ko xam nga lu suba dañ koy bàyyi ak suba lu ñëw ñëwagul suba mënu guñ cee wax waaye ñoo ngi fi ñoo ngi moom it ñoo ngi fi ñoo ngi moom te dañ koy assumer du tey nag bu ñu gisee ñu war wax dañ koy wax bu amoon 10 mandats sax dañ koy gunge 10 mandats bu président bu ko bëggoon pare nañ pour gunge ko ndax nag lam fi def kenn defagu ko fi ku gis ne nag ne ne ngi lu ne fàng kenn du ko jeex président moo fi def lu kenn defut kon boog moo fi war am lu kenn amut waaw.